docteur Serigne Gueye Diop yow yaay président Sénégal en mouvement vers l'excellence nga nekk candidat euh, ci présidentiel, yi nga xam ne yooyu la ñu nekk di dem te ku xam xam na ni APR nga nekkoon tey lan moo motiver sa candidature ba nga génn APR. oui jërëjëf euh, xam nga euh, APR dama démissionné parce que tout simplement président Macky Sall l'a doon gunge mu ngi ko gunge ba mu egg ba pare mandaam alors man xam kenn duma ma joxoñal kenn man may démal sama bop kon sama mission foofu dafa jeex ma amat nak benen projet pour le Sénégal sama projet pour le Sénégal xam ngeen ko moy euh, li ma ni nga xam mom la def Sandiara ci walu industrie ci walu formation ci wàllu agropole ci walu komkom lolu moy li nga xam moy sama yene bir Sénégal. xam nañ ni pour nga nek candidat il faut nga am parrainage te gis nañ ni sa bi nga annoncer sa candidature dafa yéex lan mo waralon li ni mel. Alors, tay, gis ngeen ne euh, congrès biñu def tay, muy congrès bi nga moma nommé euh, à l'unanimité 600 communes sénégalaises 46 départements ñoo fi tassé tay euh 14 ñoo fi tassé tay parti manko créé en un mois rek gis ngeen ne amna implantation nationale kon tay waxna ne su doon parrainage c'est, kessé kessé tay mën na wax ne suñu parrainage ëpp na sax 100 000 parrains parce que ku fi ñew tay rek indi nga ñi 5 000 parrains ñi 4 000 parrains ñi 10 000 parrains kon mel c'est pas notre problème Mon problème moy dem séti Sénégalais maintenant. maintenant Mon problème mom tous les 45 départements wër toutes les 557 communes euh, les semaines qui viennent et je l'ai fait tous les membres yi ma dañ à Matam dañ maa bëgg a gis à Ziguinchor ñi dañ maa bëgg a gis à à à Bunkiling te loolu incha allah dinaa def le tour de tout le Sénégal li nga xam ne moo importance mooy le programme bi nga xam ne moom lañu am ñun euh, ci le suñu parti le précepte ak le suñu programme muy Sénégal en marche vers l'excellence. excellence amul kenn ku ko am doo dégg mukk les hommes politiques te parler d'industrialisation. industrialisation xamuñu ko doo dégg mukk ñuy wax ay problème de agro business ci wàllu mbéy mi doo dégg ñu ciy wax ci wàllu euh, li nga xam ne la révolution bi ñu wax ci sur le plan informatique doo c'est programme l'industrialisation avec la révolution verte ce que j'appelle le plan Sénégal vert avec le plan de révolution des transports que en fait les jeunes vont continuer à se suicider à dem dugg euh, programme 557 fait, tabax lu usines Maintenant, usine agropole ce qu'on appelle le village artisanal ce que je def rek c'est ngay def tu crées de la richesse ensuite tu crées des emplois troisièmement tu fais en sorte que cette zone là mérite yi fa riche Ce bi nga xam c'est changer le transport Il fa faire euh, maintenant transport fluvial un transport maritime ku tu veux war à Dakar par le bateau ku bëgg a ku jógee euh, kii euh, Saint-Louis war ngaa mën a jusqu'à Matam par le bateau transport yooyu ci wàllu autoroute euh, ci wàllu transport par train ci wàllu transport fluvial yooyu mooy li ëpp sama programme waaye du ma yem foofu li nga xam ne moom ma gën a metti dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li nga xam ne mooy les ressources naturelles Sénégal dafa am ay jën yu bëri bëri gis ngeen ne tey avec les licences de pêche jën amatu fi loolu il va falloir ñu def les états généraux de la mer ñaareel bi mooy ressources minières yi gis ngeen ne or or bi nga xam ne moo nekk fële Sabadola

yóbbu dans les 557 lycées que j'ai construit le jeune loolu soko ko dañu dem métier Manam jeunes yi nekk ci mbedd mi ak ñi def apprentissage dañu leen war a ci ay lycée ñu jang métier yóbbu ci ay entreprise ñu jang métier Lolu c'est la première mesure ñaareel bi moi, def ce qu'on appelle les DUT xam ngeen Ben UIT benn la DUT dans les 45 départements euh, les instituts universitaires de technologie pour créer yi mën métier. Alors, je pense suñ ko defoon boole ko ak euh, zone industrielle yi le ko ak réforme de l'enseignement ku une école da ngay am métier euh, da ngay fexe ba ku université aussi mën am Link fo ligé. parce que c'est moi, le principal problème. ñu ci zone touristique lu jëm ci le tourisme lan nga def. alors tourisme c'est très important pour le Sénégal xam nga soo xoolee Mbour pratiquement le secteur tertiaire touristique de de da cee euh, dafa nekk c'est un gros problème ñom nak bima ma discuté ak ñom liñu ñu jànkonteel financement fonds touristique bi nga xam mom amone ay ay 15 euh, milliards la won et tout cela fonds yoy nak lañu wara yok ak l'argent du pétrole yóbbu ko à 50 milliards à 100 milliards ba fexe aussi que sénégalais yi aussi jot ci ci tourisme yoy moo tax sama politique dama bëgg a le capital national manam sénégalais nga xamné ils sont dans l'entrepreneuriat il faut ñu jappalé leen

voilà c'est la question qui revient Je sais un conseiller euh, des am un muy yem su Si je conseil sa caméra bi euh, da nga ko def peinture en rouge su la neexee nga def ko su la neexee doo ko def en réalité euh, euh, auprès du gouvernement foog na lima def warona ko def lo deg ci euh, muy melni ay bateau merci mako indi fi Sénégal toute la politique des zones industrielles ak agropoles yi man mako bind les 45 lycées yi ngay deg professionnel man mako bind kon ça veut dire que conseiller fekkee ne da nga nek ci di conseiller un gouvernement da ngay indi ay xalaat waaye xalaat yooyu maintenant so len ko joxe ba paré ñom ñoy seet ndax dañ koy def wala duñ ko def kon lolu mo waral justement c'est parce que mënul li nga xam li ma sama sama yéene ci Sénégal ak ni ma ko gisee man rek maa ko mën a defal sama bopp loolu moo waral li ma li ma defoon na euh, yaa quelques années dama jël tous les ministres yu bëri jël naa leen jël seen loxo ñu dem ba Suisse ma woon leen formation professionnelle. sa président ci boppam ànd nañu Suisse ñu dem visiter ay lycée formation professionnelle mais gis ngeen ne tey ñaata lycée formation professionnelle même bu Sandiara bi pareegul. loolu mo moo waral ma ma gis ne en réalité au lieu ngay toog di conseil ay nit defal li defal lele di nga ko waroon def nak mais dang koy defal sa bop mbéjum kanam ya koy fajal sa bop loolu moo tax pour le bonheur du peuple sénégalais et pour dans l'intérêt du peuple sénégalais j'ai décidé que mesures yi ma bëgg a jël ak li nek sama bop ak li ma xam j'ai été dans 65 pays dans le monde kuma ma ne mën na def ay lycée rek di nga ko gëm kuma ma ne mën na tabax ay usine di ko gëm parce que tay suma jëlé sama téléphone wo aduna bi c'est les partenaire. partenaires dans les 105 pays du monde le capital euh, sénégalais le patronat sénégalais Mouridi, nous yi dans investir autour de Touba autour de dans tous le pays dans toutes les tarifs, tous les sénégalais de l'extérieur euh, de ñëw parce que la politique dafa importance le retour de la diaspora waxna len diaspora ñu melni man man je de la diaspora tant que ñib ci wuñu Sénégal lu bëri day tardé parce que diaspora dafa am xam-xam bo xamné ak ay méthode de travail yoo xam dañ ko jëlee bitim réew loo xam ne mi da ko soxla loolu moo waral vraiment euh, ma ma décidé ne dama wara jël sama yoonu bop te man ku ne xam na ko moi je prends toujours le chemin qui me plaît fi nga xamné mom la laa gis na li amna askan amna na ci askan mom la jël en en 2000 ak sama xarit euh, Doudou biñu ñu tabax li sa Sandiara tàgguwuñu kenn dañu taxawal lycée bi def ci 850 850 milliards 850 euh, millions il n'y a pas un seul franc de de l'État Mais nous waree tabac def ndokh, def courant en tant que maire tabac ay école dañu tabax ay école par nous-mêmes 37 euh, salles de classe le tabac, tabax ci ay et ay collèges donc même na ni kon euh, li nga xam ne moom laa yéene def ci vraiment je vraiment loolu pas me dama direct, nous ne damay dem jël le suffrage des Sénégalais defal ko sama agropole Sandiara bi vous ba léegi euh, dañ koy tudd waye dafa melni ni euh, avancé lan moy euh, problème bi entre intercommunalité Sandiara Nguéniène ak malikunda alors qui intercommunalité en réalité mu ngi avancé il faut temps ñu jël leen yobul leen fofu les travaux ont commencé le financement de 53 milliards. Euh, justement euh, pratiquement bouclé et les travaux ont même commencé L'idée c'est que mooy euh, xaar nawet bi passé pour que les travaux commencent intercommunalité boobu xam ngeen ne euh, sama xaar naaj sama tànk au départ histoire est très bëri Mais ce que je veux gëm mooy intercommunalité moo mën tax Sénégal développé foofu que gis noonu nous fa créé lu 000 emplois Nous fa créé lu indi deux vaches laitières yoo xam ne su alors dina mën permis Sénégal